donc les léegi nee ko nee tu as voté pour le candidat que le président avait choisi muy Amadouba. Ba gis que récemment génne na bien communiqué face à une nouvelle responsabilité am lu mu ci rek dafa bëgg assumer li nga xamante ni chef de responsabilité en défiant Macky Sall comme yow défier nga Arona Coumba Ndoffène Diouf Amadou Ba mi ngi défier Macky Sall dafa mel ni yéen yéen ngeen di guerre seen biir. non man gëw ma ne Amadou Ba day défier président Macky Sall. ah déggoo liiroo communiqué non gëw ma non liir nga ko liiroo. non lire n'a ni rek en vrac. lan la ci mais su waxee su waxee boo waa APR kat mooy waa APR. du ma non xam nga Amadou Ba du bind communiquer waye boko signé. mën na nek duñ ko bindal dara té signé wuñu ko buñ koy génnee. d'accord mais xam nga communication. mën nañ ko def pour jeter une information. mais ñëw na sur les événements douloureux de 2021 alors qu'il n'y avait pas des événements douloureux en 2021 il y avait de l'insurrection appelée par un opposant politique. yi gis nga wax yoy yëpp man amul jugement de valeur la seule chose que j'ai dit à Amadouba, moi il qu'il reste dans le parti Amadouba, amadouba reste dans l'APR. reste dans l'APR Et Amadou Ba quitter APR. mais lan ce fay à avenir c'est un responsable c'est un militant de l'Alliance pour la République. en ce que je sache. c'est un responsable politique. qui travaille pour le compte de son excellent monsieur le président Macky Sall en ce que je sache. qu'il travaille. non en ce que je sache man. ba Amadou Ba saay bu mu waxee ne moom bàyyi na APR ca lay doog ko gëm ne bàyyi na ko. mais depuis après élection Macky Sall tuddul Amadou mais xam nga man lu ci lu ci neex. man ku jàpp APR ma jàpp APR. ku bàyyi APR ma bàyyi APR. ku dem bàyyi ma APR ku ñëw fekk ma APR ku président Macky Sall joxoñ dama koy jàppale waaye képp ku nekk responsable attaque APR traître nga. mais attends tey Macky Sall li mu def Amadou Ba ñëpp teg nañu seen bët mais Amadou Ba lu mu def Macky Macky Sall lu def Amadou Ba. bloqué na ay t-shirtam bloqué na ay teneem Amadou Ba nekk na pleine campagne. gëmma loolu ah si on l'a vu non non ça ça moom je te le confirme. man gëmma loolu je te je te le confirme. man dama am ay t-shirt bu cotisé yow. yéen les cadres là yéen waa cadre li ngeen cotisé woon pour ñu campagne ko ko bloqué Amadou jëlu ci dara. non gisuma loolu. gisuma loolu. yow gis nga ne Macky Sall Amadou Ba khalis non yaa ngi nga ne baaxal nga campagne Amadou Ba kenn joxu la dërëm sa xaalis nga demee. non effectivement. khalis boobu anamu. non xam nga man. man est-ce que Macky taxaw na ci benn campagne. taxaw sama candidat ngi suñ commune joxoon nañ ko xaalis. kan moko jox. le parti. parti bi. Hmm. jox na suñ commune xaalis. bu desee 3 jours ci élection. non non non non non jox na jox jox nañ premier G xaalis. jox nañ deuxième G xaalis. jox nañu xaalis suñ commune. mais yow gis nga le Macky Sall def Amadou Ba quand non man luma ma gis mooy ne président Macky il a soutenu comme il pouvait le faire. il a soutenu Amadou Ba. il a soutenu comme il pouvait le faire. waaw ah, man lay gisuma. jox nañu xaalis mais man sama ngor mayuma won en tant que autorité ma am nom nombre tank ci parti bi wara a samay moyen di jël ay moyens parti di ko utiliser politique man sama politique non la. d'accord suma amé amee damay def. mais sen candidat yéna ko tan c'était pour que Benno Bokk Yaakaar c'était pas mais on s'est on s'est battu yow tay xam nga wax. vous étiez battu Bassirou Diomaye Faye na. déglu ñun fa lañ perte. ba faire fers ngeen Sénégal yëpp ngeen perte. non Fouta doo ngeen gañe. Fouta ak Fatick lañ gagné kese. déglu ah. président Macky Sall. Kaolack moo score bi taxul mu demee non wa gagné nañ leen sax. wa mais tax xam nga ñun suñ bastion électoral Touba dañ leen door linguer dañ leen door dama dama expliqué dama expliquer rek. <laughs> Dakar bi nga xamné suñ candidat fi la dëkk nak kan Amadou wa musul gagné Dakar. yeen seen bokku seen gagné Dakar même toujours Amadou raison de plus xam nga. Macky musul gagné Dakar. xam nga man dama ci xulo ak benin Dakar mo opposition mo dama ci xuloo ak nit ay nit dembu ñu ne président dafa war Amadou Ba mané yeen ñep ay traître ngeen ñoom ñoom ñoo ko man ne yéen ñëpp ay traître ngeen yeen ñi koy wax ay traître ngeen président warul ken président il a fait ce qu'il devait faire il nous a sacrifié il a travaillé pour le Sénégal jéxal na néna man duma candidat le candidat wara dem il s'est battu ñun dem nañ accompagner ko waye ñun wa Dakar devons nous faire un diagnostic intérieur est-ce que ça Ndong lu ko waroon def na ko ak waa population biscuiterie ba tax ñu perte biscuiterie est-ce que ñoom Parcelles Assainies bi nga xam ne presque ku ko gagné département Dakar dañ koy gagné ak poids électoral am nga xam ne tey suñ ko gagné woon au minimum dinañ dem ba 40 pour cent suñ gagné woon on gagné woon comme biscuiterie yi gagné woon Pikine est-ce que ñun dinañ perte élection est-ce que électoral Touba dina mën a ñëw. Ils ñu ngi xass mais ils n'ont pas le droit d'insulter Abdoulaye Ils Diallo ils droit xass Abdoulaye dialo je ne fais le procès de personne Abdoulaye Diallo ak mom ni face to face ñu mais ken droit luma tok ak Amadou Ba ma am Abdoulaye Diallo mais ken droit xass fay ken droit xass Diallo ken droit xass président Macky wala xass xam nga a elle a fait la razzia à dans sa commune a gagné dans sa commune Daouda Diallo dafa def razzia fum au Fouta est-ce que nous sommes devant razzia Dakar duñ gagné. mais pourquoi maintenant qu'est-ce qui motive cette félonie politique c'est c'est à des gens qui se permettent d'attaquer à tout vent au président de Omar Sow bi non l'analyse bi nga c'est cohérent. Pekin, an non analyse bi nga def c'est cohérent parce que nous, ngeen di ñoo 39 Wow man si y' a problème c'est à leur niveau man man suñu le candidat moo am 34 pour cent dama ne wax ne yéen candidat a 34 parce que 34 pour parcelle vous, mu fu mu dañ ko dañu le jour là j'ai versé des larmes. bureau de Maram je me suis brûlé dans un angle laaj j'ai versé des larmes. non jaruñ ga donc tey nañ bàyyi di attaquer ay des accusations flacieuses. Omar Sow mom ngay wax nonu feem dëkk nii mënu personnes et puis ñi ngi wax loolu yépp di attaqué président Macky Sall kan ci ñom nga gis mu mëna voter village kan donc il faut ñun ñëpp ñu def des introspections am honnêteté intellectuelle am la froideur d'analyser nos tares et de se dire que nous sommes les premiers fautifs et nous sommes à l'origine de la chute de notre régime. Et laissez tout tranquille le président Max en train de travailler sur la logique des réalités socio-économiques qui l'attendent dans le monde entier. Il qu'il est sollicité par tout le monde. D'accord. Tant mieux de venir, nous avons une question. C'est une ex-collaboratrice de Mimi Touré, nekkoon fi de premier ministre conseil économique environnemental social ministre de la justice envoyé spécial le fait que Macky Sall soit envoyé des 4 paix, ça lui mal à l'aise parce que liggéeyul dara Afrique ni Sénégal ah lol de moom wax dëgg neex la soukou ko waxee dina ma bett trop waru ko wax waru gëne ay waxam te ba mu nekkee fii ba Sénégal moom mag mën na ma jur mot na gis président bo xamante ne fal nañ ko mu gëni après ñëw quatre fii Sénégal. non 4P bu mu gérer quoi. 4 mais il est devenu un Abdou Diouf il était quoi non nee il est devenu un employé de Macron. il n'est pas un employé de Macron. Merci. il n'est pas du tout un employé de Macron Macky il gère la géopolitique mondiale. C'est des questions précises et très sensibles les questions climatiques quest ko xam le climat le réchauffement climatique les gaz à effet de serre la capacité d'oxygénation ou bien le, le taux de dioxyde de carbone dégagé par an et le taux d'oxygène dégagé par an est-ce que les plantes sont capables d'absorber ces tonnes de milliards de dioxyde de carbone qui, sont dégagés par an, est-ce que si ces tonnes de milliards de dioxyde de carbone dégagés par an ne sont pas réabsorbées par nos plantes et les autres ne sont pas dissipées par l'évapotranspiration, est-ce que nous avons des conséquences négatives par rapport à notre survie C'est des questions techniques qui ont été la présidente Macky Sall. Donc, le président employé là, non tu te trompes de de de cible peut-être même je dirais que c'est indigne de c'est des propos indignes envers une personne il a servi sa patrie il a servi l'Afrique parce que le président Maxal, mon Sénégal intégré le pays des des producteurs de pétrole et de gaz président Macky mon Sénégal siège Sénégal le président Maxime Montarté, il est siégé dans le G20 donc il y a des faits yoo xamante ne ku remercier président Macky Sall booba wax dëgg ndax la